des nag di di politique itam ndax <laughs> euh, dafa di lu ci ñun mhm. waaye ko parti politique ci massification mhm. kon ñu ngi ci ñu ngi mhm. waaye itam nañu Sénégal te jot na ñun ci suñu biir itam ñu seet ñi nga xam ne ñi a taxawal ay coalition euh, duñu doon rek coalition yu ñu taxawal euh, ndax war jëm ci élection waaye coalition yoo xam ne yi dañ leen di taxawal ndax jàpp ne politiquement euh, mën nañu ànd ci kaw bokk gis-gis bokk ni ñuy war a doxalee politique. Hmm. sans pour autant mu am jafe-jafe leadership parce que nag dañ koy wax ci wolof naan kuy yu bari duñu bokk mbalka te nu gisee seen alliance léeg ay ay leader yoo xamante ne ay forte personnalité ñoo koy séq. waaw moo tax it lu noonu mel buy door dafa war a woyof mhm. mu doon loo xam ne lii coordination lay gën a nuru te nekk gut benn rek organisation benn benn benn benn parti mhm. waaye muy bunt itam boo xam ne tëjuñu ko ñu ngi ànd lu ñu def déggoo ci ànd ci waaye it fileeg ay at nañu jàpp ne dinañ mën a ànd ba bokk benn benn parti. Mhm. la mayonnaise va prendre comme. incha allah <laughs> Abdoul Mbaye euh, nekk banquier. ku ne xam nga ni banque ay wax kese yoru ko politique Sénégal dañ fi baaxoo woon wala ba tey jii politique goo xam ne wax la dige la ŋàññante de surcroît yow noo ci taxawee ci làng gi en tant que leader politique. waaw gis nga li gën a tax ma dugg ci politique ñu ngi jógee ci euh, li nga xam ne lii dund naa ko nekkuma ci politique di seet ni ñuy doxalee politique fii ci Sénégal. Mm-hmm. Euh, dem dugg itam ci gouvernement jiite ko. di gis ni politicien di doxal politique fi ci Sénégal mm-hmm. gën na ca toog di saytu li nga xam ne lii mësan naa ci jaar ak di des di gis li ñuy doxalee politique ci Sénégal mm-hmm. loolu moo indi bi ma xalaatee ba xalaat ba xalaat ma Sénégal bi, li ko mën a jëmale kanam li mën indi koom dëgg ci suñu réew li mën a jafe-jafe yi askan wi di dund. Mhm. mooy dañu war soppi ni politique. ndax ñun fii ci Sénégal man ci li ci gis ci politiciens yi. Mhm. dañu jàpp ne politique dafa daal di mel métier. maanaam loo amut kër amut oto amut mhm. amut. damay daal di politique daal da ca jot. loolu du politique. politique da ngay nangu liggéeyal sa nangu askan te li indi won sax ma jàpp ne war naa jàppale euh, Macky Sall bobu candidat la té jàpp ma woon war def politique itam ndax mosuma dugg APR mosuma bok wayé dama yakaron lol né li mu oté dina ko jëf. Mhm. ma yem rek ci la patrie avant le parti maanaam jiital njëriñu réew mi ak njëriñu askan wi bala mhm. may jiital njëriñu politicien. waaye loolu gisuma ko ci moom. Mhm. kon ñun ñu ngi liggéey ci soppi ni ñuy doxalee politique te bañ a yem rek ëllëg. jël nañu bi politicien neexuñu dañ ko folli indiwaat beneen politicien. Mhm. kon li nga doon daw moom ngay. moom ngay daanaka répondre rek maintenant politique ak yàkkamti gi ci ndax gis nañu même sa militant yi boo parcourir internet bi Abdoul Mbaye la ñu bëgg Abdoul mbay la àndal gars yi boo taxawoon ne leen li ma jiital mooy réew mi pas man sama palu. ci ñoo xam ne 2024 da war war jëli réew est-ce que am patience wa mais ñun n'ak li Nous sommes des militants. Nous sommes militant moom foog mu ànd ak xarañ. Ah, ah. mun a <laughs> loolu tam li ñu ci moy ñu réew mi askan bi ah, suñu ñu bop kon ci kaw loolu bu fekkee loolu ko munoo ne lii laa war a doon par force ci ñii ci ñii at ci ñaari at ci ñetti at déedéet. Mm-hmm. da ngay daal di jàpp ne ni ñuy doxalee politique la ñu war a soppi. maanaam indi Sénégal yi yee leen ci lii ngeen di nangul politiciens yi bu ñuy oote di leen dig di leen wax loo xam ne bu ñu toogee duñ ko topp. Mm-hmm. ndax rek topp seen bëgg-bëgg ak euh, li li li li li nga xam ne li mooy njëriñ ci seeni i ak ci seeni i parti loolu bu leen ko gëmati uh-huh. des leen ci dikk leen ci di ràññi ci kaw diw day mës na liggéey ba ñu gis ko mm-hmm. euh, gis nañu ci moom wax dëgg du diggaate lu lu mu lu mu lu mu lu a def mm-hmm. euh, bu boobaa booy taamu nga sànnil ko kat kon li ñu jiital mooy nañu soppi jikko yi nañu soppi ni ñuy doxalee politique fii ci Sénégal ci mhm. xelu Sénégalais yi soog a mën euh, a amal dara du du ñun sax du ñun mhm. rek waaye rek na sénégalais yi jàng naka la ñuy taamoo mhm. homme politique homme politique waxuma politicien

mais Sénégal politique bi dafa and ak achat de conscience. Mhm. achat de conscience bo xamné yon terrainoko, tere électoral terrainoko. na ko. Mhm. Euh, bu na nga gis ko. Euh, dañ koy assumer diko filmer. Mhm. di ko def ci journaux yi jël saaku tiep di euh, lolu itam ci deug deug deug metti na lool wayé jafe na koo xam ne na. nga ñëw mm. may ko tiep ne ko nga ma. mu mu mu bañ ko. Mhm. kon ñun li ñuy oote mooy na ngeen nangu te loolu sax mës naa ko dégg mu jógee ci gémmiñu Macky Sall ci boppam. Mhm. na ngeen ko nangu ndax seen alal la. Mhm. waaye bu ngeen di vote ji ba wéet ca isoloir ba. na ngeen taamu ki nga xam ne ki yaakaar ngeen ne moo gën ci réew mi ak itam ëllëg. dina la mën a génnee ci xiif. boo xam ne doo xaar ba élection. ñu war la jënd ak sàkku ceeb wala junne. très premier ministre Abdoul Mbaye mooy sunu invité mbok yi cette émission yone avec RFM dina ñëwaat ci karam tout ci politique gi ndax euh, daanaka euh, actualité baa ngi fii waaye actualité beneen mbiram Faubier euh, tud nañ ci sax un ancien député Seydina Fall Bougazeli bu ñu jànnoog un banquier quand même duñ mëna a mën évoquer lolu d'abord lan lan moo ci sa xalaat bu njëkk bi ciowli amé ah sañuma wax né bett na ma. Mm-hmm. ndax gis nga liñ ñu doon wax sank rek.

faux bok na ci alal bu leewul waaye alal bu leewul wees na faux billet mm-hmm. yaa ngi dégg milliards yi ñuy sacc scandale yi bari na OFNAC bu jógee def rapport yónni procureur kenn du ko top donc bu kenn warut ta jaxlé bu fekkee né campagne ñew na nit ci di gëné ay millions ak ay milliards ak i milliards mm-hmm. kenn du laajte fu mu jógee lool yépp alal bu leewul la mm-hmm. du salaire mëna joxé lool loolu nak li xaw a bette ci nga député mm-hmm. bu suis ci député ndax député dañuy faral honorable député mm-hmm. kon bu ñu xaar ba ba enquête bi ba jugement bi day mm-hmm. ah metti na député campagne ca élection législative yow won 2017. Mm-hmm. ci loolu lañ doon oote. campagne bi yépp ci kaw yété bobu ma la doon wax sànq. Mm-hmm. ñu ngi daan fatali askan wi ak électeur yi né député. Mm-hmm. du ndawu Macky Sall. ndaw askan wi la wara doon. mais système bi tam mo teunk askan wi tax yeeg nii nii falee ba ci mairie gis nga ko conseil municipal bi ñoy dajé tan ku leen neex ñu ngi wax sax fan yii euh, xëy on va vers ben système bo xamni askan wi fal directement mais loolu mo gën nak askan wi nañ ko yee rek. nañ ko yee mu mën a xàmmee. looloo looloo yoon. waaye démocratie ak suffrage universel ci dëgg-dëgg. ci lépp la ci démocratie démocratie ci loolu la war a sukkandiku. askan mm-hmm. wi war a fale kenn waru ko tànnal. Euh, ci wàllu faux billets gi quand même euh, économiste nga ci euh, loolee est-ce que manes na wax ni am na ay vrai faux billets ci waxin yoo xam ni dafay yàq économie bi day dugg. faux billets foo ko gisee rek day yàq économie. Mm-hmm. ndax billet warut a génn te amul lu lu lu foo xam ne fii da da def ci tegu. Hmm. maanaam euh, mu muy luñ la leb. Uh-huh. maanaam banque leb la génne billet jox la. Mm-hmm. ba nga am alal bu jógee ci bitim réew ci ci ci ci sa mbokk émigré. Mm-hmm. mu mu ñëw ci yow. fekk soppi nañ ko eh, wecc nañ ko mu doon CFA. mu mm-hmm. doon billet kon faux e billet bu dugg rek te jaarul ci yoon yoonu koom. Mm-hmm. day yàq koom. day eh, yàq koom xam naa su ma la laajee nu ko gars yi defaree rek lu ñu koy defaree xëy na. <laughs> loolu nag xaw <laughs> ma ci <laughs> lu bëri. très bien mais Bessiao quand même euh, am na son mot à dire dans cette histoire là xëy na dafa am na lu ñuy xaar mais ñoom it. Ah, war nañ mën a taxaw comme partie civile. absolument absolument moom day daal di doon partie civile ndax lan ndax moom la ñu dénk. Mm-hmm. CFA bu war a génn. Mhm. ci ci ci loxoom la war a jóge uh-huh. kon boo defaree CFA te jaarul ci loxoom bu boobaa daf la war a topp. ci gàttal si pas une mince affaire yëpp yi du lu ndaw ah. ah. du lu ndaw. lu mhm. ndaw ah, lii de man de ni ma ko gisee. Mhm. Euh, waxtaan ak procureur mënu ko dindi. waxtaan ak procureur. mënu ko dindi de mënu mënu ko ca génne. Uh-huh. mais lu tax ñu gis Sénégal kilifa yu bari quand même da ngay seetlu ne xaalis bi ñu jëfandikoo méngoowul ak la ñuy am ne ay revenu quand même wala boog ñu am liggéey bu ñuy lax et pourquoi y a aucune enquête au niveau des banques par exemple dañu ñëw def ay versement est-ce que les banques dina jël matuwaay di di enquête di xool traçabilité pour xaalis yu jóge. Ah, wala ah si ah si loolu yëpp am na. loolu yëpp am na. Mhm. ndax euh, ñu tuddee ko déclaration de soupçon bu fekkee ne am na lu ñu indi ci sa biir banque. Mhm. te nga ñaaw njort war nga ko déclarer bu fekkee ne wees na juróomi million ci ben semaine. Mhm. ci juróom-ñaari fan. war nga ko déclarer. kon banquier yi am na ñu am na ci seen ci seen biir am na kuréel boo xam rek lay topp. Mhm. ci fan actualité bi batay walu comme bokk na ci mbiri euh, français fa bi dégg nañ ci sa xalaat ak suñu naataangooyu RFI. Euh, ginnaaw bi ñu ne Patrice Talon njiital Bénin moom daf ni dafay dem daal di dakkal li nga xamante ni mooy kopparam euh, yi nekkoon ci réserve réserve Bénin yi euh, ci réewum France yow ne nga ak yàkkamti da ci am lu tax nga wax ko. gis nga franc fa ñu bëri ñu ngi ciy wax te xamuñu ci lu bëri nañu bàyyi franc fa wax lii monnaie. Mm-hmm. monnaie benn tour la france franc CFA cedi dalasi ouguiya

am koo xam ne kii dina la indil euro nga mën ko jox sa CFA mu nangu ko. benn boo gisee tur ba ñun suñu bos franc CFA la am na ñu bëri ñoo xam ne nee nañu jot nañu soppi tur ndax franc France la waaw franc du France. ndax franc belge amoon na waaye ba tey France ci boppam bàyyi na franc kon xaw ma lu tax ñu war a des ci franc. Mm-hmm. kon loolu dañ ko war a nangu xalaat ci.

bu fekkee ne bëgg nañu wàññi ñu wàññi bu fekkee ne bëgg nañu yokk ñu yokk ci ñoom la. est-ce que wér-gu-yaram koom-koom suñu différent réew yi may nañu ko aussi parce que jiite ak. Euh, non ya yaa ngi dugg ci beneen domaine. Hmm? mooy analyse économique ak yi waaye loolu xëy na xóot na man ah. maa maa ngi yem ci rek euh, loolu kan kan kan kan kan moo ko war a dox. Hmm. ndax da ngay dégg ne France moo indi loolu. kon man de ci li ci li ma jàpp mën nañu wax ne waaye fokk ñu dugg ci euh, ay ay ay études yu xóot. Mhm. ba war a xam ndax français CFA dañ ko surévaluer wala war nañ ko wàññi. Mhm. loolu di ñaar ñetteel ba muy convertibilité maanaam maa ngi ak franc CFA ndax yomb na ma ma mën ci am euro mën ci am dollar mën ci am cedi bu Ghana mën ci am naira loolu mooy convertibilité. Mhm. convertibilité boobu itam nit yi dañu jàpp ne France moo ko garanti xëy na sax France moom itam di bàyyi loolu ci xel nit yi. Mhm. waaye loolu amul. Mhm. convertibilité bi ki ko garantie mooy banque centrale des états de l' Afrique de l' Ouest. BCAO. convertibilité boobu lii tax nga mën a jël sa CFA wecci ko ci beneen i monnaie wecci ko ci dollar mën ci jënd ceeb ca Thaïlande mën ci jënd oto ca feneen. Mhm. banque centrale BCAO moo koy garanti ci kaw lan ci kaw li ñuy tuddee réserve te tudd nga ko sànq. Mm. moom la Fatou Sall en toute autonomie économique wala ba tay jii rek. waaye nag cordon ombilical baa nga ci tugal. xaaral xaaral ma ñëw France nag mi ngi dikk ci mën na am BCEAO jeexal réserve amatul réserve. Mm. te waxtu bi may wax ak yow banque centrale am na lu jege neuf mille milliards juróom-ñeenti junney milliards. reserve ci say CFA. waaye ci euro ci dollar ci yenn ci ci monnaie yu ne. Mm-hmm. kon du tey lay jeex. waaye France nee na. Mm-hmm. bés boo xam ne jeexal ngeen mësoon na am nag benn yoon bi ñuy laata dévaluer bu fekkee ne jeexal ngeen bu boobaa ci saas li ma dalaan ma ma dinaa génne sama réserve man jojox leen ko. jox leen ci li ngeen ci soxla. loolu dong la. loolu dong moo ñu booleeg France. Mm-hmm. loolu itam mën nañ ko soppi. Mm-hmm. ndax li am solo rek mooy banque centrale BCEAO moo yor convertibilité bu fekkee ne senegal soxla na ceeb. Mm-hmm. CFA jëndul ceeb ba Thaïlande munu ko. dollar mooy jënd ceeb. Sénégal soxla dollar. Mm. banque centrale ne ko jox ma sa CFA bi nga xam ne bii maa ko génnee ci sama kees. ma jox la dollar nga mën a jënd sa ceeb. waaye coow li bari na. coow li bari na te maintenant mbiri réserve yi nag ak ñi jàpp ne France dafa am loo xam ne état Afrique dañ ko war loog moom at mu ne. ci ay ay ay koppar yu ñu jox France ci loo xam ni démb la aussi il faut expliquer aux Sénégalais sama maas nga xam ni débat bi day xaw trop technique ci non non gis nga France dafa ne man sa yu ngeen ñaké ma jox leen té ci lu gaaw waye man nga ko am itam ci FMI Fonds monétaire international waye boo soxla ci FMI. Fonds monétaire international dafay fay wara jaar ci mission bu ñew set sa set ce sa finance publique de rapport yóbbuwaat ko Washington New Talk ci set, Boba yow soxla nga. ana ceeb bi ñu soxla ana auto yu ana pétrole bi war dug, dugg yow nga kale. France mom dafa Signe man day signé nañu Sa ko ko indi. Waye nak ci kaw sa genn réserve Manam lepp lo am ci ci reserve ci bitim réew ci dollar ci ci ci ci ci yen bu Japon ci ak yeneen ak yeneen. Mhm. genn wàll ja. Mhm. na ko bàyyi ci sama compte. naka jekk xamoon naa ne du philanthrope la ñu rek baax noonu. xamoon naa ne waaye loolu banquier yëpp koy def. Hmm. boo demoon tey ca banque euh, CBAO. Uh-huh. nga ne ko waaye man de mën na am ëllëg.

leneen mënut a ne. Hmm. leneen mën na ne. mën nga déggoog waaye nag foog nga déggoog xëy na soxla. Hmm. xëy na doo soxla am ay réew yoo xam ne doxaluñu noonu. Hmm. ñoom dañu ne rek bu ñu nañu et puis c'est fini. non fii dañu ne bés bu ñu ñàkkee nañu seeti koo xam ne dinañu mën a ci saas li. mën na France muy tey mën na doon Allemagne mën na Chine mën na doon Arabie Saoudite waaye loolu yëpp ci waxtaan waaye bu ñu yàkkamti ngay wax nañu génnee nañu bàyyi hmm. mu am jëm hmm. xel nga choix bi prudence bu Patrice Talon eh, hmm. Patrice Talon chef d'état la lii wax chef d'état luñ ci taxawal dañ ci ko war a taxawal ànd ci ñoom juróom-ñett. Mhm. loolu lañu ñu kon bul jóg yow kenn. ne nii la. Mhm. ci loo xam ne yow ak sa juróom-ñaari nawle yenn ci war a ànd. kon dafa gaawantu te lu noonu mel itam na nga ci jëkk waxtaan ak ñi nga xam ne ñii ñoom nga dénk franc CFA muy BCEAO. Mhm. ñoom itam ñu wax la ci seen xalaat nga daal di seet li ci des nag. wessul ngeen tok di waxtaan ba déggoo am ngeen genné solution waaye tëb rek waxtaan xëy na amagut amagul. Hmm. Euh, mën na yàq lu bari yow sax mën na la.

waaye ku nekk rek booy jëm ci banque. Mhm. na nga euh, jiital xam jéem a xam naka lay banque di liggéeyee banque ñaar la. Mhm. dënk ma sa xaalis mooy ñi nga xam ne ñi ñoo koy dënk xaalis di ko di di di di di ubbi compte. di ko ci mhm. duggal bu boobaa itam war na la nga sañ laaj bu ma ko duggalee. ñaata ngeen mën ciy jox. bu fekkee ne des na ci yéen. ñaareel ba soxla naa alal lebal ma. lebal ma ci naka. Mm. bantoo ngeen déggoo ci loolu loolu loolu na du du leneen. Mm-hmm. ndax nag loolu itam dañ koy faral di fàtte. banque amul alelu boppam waaye alelu boppam dafay néew mooy capitalam alelu jàmbur lay leble kon bu jógee ba waral. lebal ko xam ñew na ci mom mhm. dafa wara seytu bu baax ndax ki bu ma ko joxee aleelu jàmbur dina ko delloo. taux yi ci yi ñu ciy am dafay metti do alelu jambour nga jël ko bëgg caa ëppale jambour lool tamit parce que président Sall ci moom déggoon naa mu ko don wax. ci campagne bi j'ai mettre un terme xamna dafa ñew gis réalité nek autre chose mais tout, banque yi prêt yi dafa dafa yéeg. loolu ànd naa ceeg yow nangu nako, ko taux crédit dañu xawa bari waye loolu itam likoy mm. indi moy ben mm. banque yi dañu bari. ku nekk rek nga bari siège ah. bari luwaas booy fay hmm. bari agent booy fay ak yeneen ak yeneen ak yeneen ni li bu ba noppi nag dépo yi maanaam li askan wi di duggal ci biir banque yi daal di tasaaroo ci diggante banque yi hmm. saa yoo war a leble nag ngay jéem a am lu lu loo xam ne lii dina doy nga war a fay loolu yëpp man bi ma nekkee ba ca biir banque centrale sax hmm. dama doon ne nañu góorgóorlu ba euh, ay banques yi gën a néew ñu dajaloo. Hmm. juróomi banque doon benn et cetera et cetera. te loolu amoon na ci ay développement ngay wax tant que banque commerciale yaa ngi fi moom du ñu gaaw a développé. <laughs> voilà si banque commerciale dina dina indi développement mën na ko. Hmm. waaye loolu yëpp rek itam ci politique crédit ndax. Hmm. am na itam loo xam ne ñu ngi koy jaawale. da ngay ñu naan. france AFA, dañ ko soppi et cetera waaye lu bëri ñu ngi ko war soppi ci politique de crédit. manam mhm. ni ñuy doxalee leble. ba commerçant yeeg opérateur économique yi soxla aleel boobu ba mën ci jot. Ah ba noppi nag mu am lu mën ci yokk itam euh, franc CFA dëgg la coow li bari na wax nga ko mhm. ñu xam ñu xamut ñu ngi wax. waaye na nga seetlu man de déggaguma.

sénégalaise notamment rawati ku ci melni yow dem ba ci haute école yi nga xamni ni ñoo nekk foofu ci ci France donte France xamna ni bu sañon sax téye leen mais ñun dañu bëgg yeen ngeen daggal ñu boobu buumu ndiam wa mais lolu nak man dina ci wax lu leer <laughs> man ak François Hollande. Ah ah. ñoo bokkon école. ñoo bokk fi ñu jànge man amul tubaab boo xam ne jaaxal na ma walla tiital na ma walla mën na ma xoqatal loolu amul. Ah euh, bu may toog ak tubaab. damay toog ak sama nawle wax ak moom mu leer ndañ. Mm. aw ma ci benn complexe. damay faral di wax sax man bi ma nekkee euh, lycée Louis le Grand ca classe préparatoire yi. Mm. ndegem maa def maa fa doon njiit nekk major. dama doon wax tubaab yi maa leen mën. Mm. maa leen ëpp xel. africain moo leen mën. ndax am na culture am boo xam ne denc na ko këram. Mhm. ba noppi ñëw ci yéen di leen di raw. jël li ci gën ci ci laa am jàmm ci racistes yeeg yooyu. impacté maintenant ci sunu vie de les jours sunu politique yu ñuy conduire ici en Afrique. waaye loolu danga koy wax ñii sañuy njiit. Mhm. ñoom ñoo nekk ci yooyu attitude. te warut. Mhm. warut. ku nek rek da nga war a jiital li nga xam ne lii moom nga jàpp ne mooy sa njëriñu réew. Mm-hmm. bu fekkee ne France mi ngi doxalee nii ndax intérêt français yow nga doxalee nii France ndax intérêt sénégalais. waay loolu rek am mën a nekk. ñoom am nañ fulla ji ndax keroog barki démb wuñ jaa si kese <laughs> danoo ñëw ak ay contrat di signé di dugg ak génn suñu entreprise yi mais pourquoi waruñu mën a am une bonne réplique quand même. waaw mais li li ma la wax rek moo ci ne. Mm-hmm. li ma la wax moo ci ne. ndax boo seetee lu mel ni avion yi nga xam ne signé nañ ko muy marché yo xam dañ koy wara jënd ci entreprise bu bu bu France bokk mais man jàpp naa ne jënduñu ko muy njëriñu Air Sénégal mhm. dañ ko jënd ndax bëgg neexal France té loolu du yoon c'est grave c'est grave du mhm. yoon mhm. actualité bi monsieur le premier ministre Abdoul Mbaye moy mbiri Petro-Tim ñu ngi ci audition yi suma djumul est-ce que est-ce que wuñ la jaaragoo fa. ah jaar naa fa kay jaar naa fa sax. am nga yaakaar ci yëpp nu mu nar a mujjee. Eh, aw ma ci benn yaakaar. Ah bon waaye li am solo mooy sénégalais yëpp. Mhm. xam ne dëgg bi yëpp dëgg bi yëpp wax nañ ko ci fuñ ko war a waxee. Mhm. xam nga lu tax aw ma ci yaakaar. pourquoi vous en êtes si sûr quand même <laughs> la vérité dans cette du loolu xaaxaan ma maa ngi ci ñëw. Ah ah. li nga xam ne lii ñu ngi koy topp ci enquête yi nga xam ne taxawal nañ ko li ci gën am solo amut mhm. nekkut mooy faux ak usage de faux ndax looloo am gis nga Petrotim lu yomb Frank Timis ak société am courtier la mhm. dafa dox diggante diggante kan ak kan diggante ak ñi mën a liggéey teenu pétrole ak gaz. Mhm. muy BP ak Cosmos ak état du Sénégal. te génn na ndax mënu ko amul alelam amul xarañam jàng ko. Mhm. te li ko gën a firndaal mooy génn na ndax courtier la du leneen. jël na ci alal bu dul jeex te loolu warutoon ndax yoonu senegal daf ko tere. mais ñoom kilifa yi dañu weddi que ci ngeen yi ñu déglu yóbbaale ngeen ay preuve que ni perspective li ma lay wax rek balaa sax ngay àgg ci ñaata la yóbbaale mhm. ñaata la am ndax nag ki ko jox nee na jox naa ko ki ko jox nee na dinaa ko jox waaye secret la waaye weddiwu ko mooy BP Cosmos itam weddiwu ko mhm. waaye li ci gën a am solo 15 la ñaari 15 la mille millions moy dañu teggi yoonu Sénégal Lolo, am ndax jël nañu teenu pétrole jox ko ko xamné ne ko munu ko xamu ko té lolu yoonu Sénégal daf ko téré article 8 de la de la du code pétrolier 1998. Mhm. lolu faux moko indi faux bi ko indi moy lan. mooy décret boo xam ne ca rapport de présentation bi dañu dañ ca bind ne Frank Timis bii ñuy jox teenu pétrole ak gaz bi mm-hmm. am na xam-xamam am na alelam am na xarañ bi tudd ñu sax Frank Timis dañu ne ay investisseurs yu nekk ca Asie mm-hmm. muy fen kese c'était pas

yoon boobu la ñu war a topp yoon boobu moo indi kuréel bi nga xam ne bokk nañ ca muy CRD. Mhm. moo ñu yebal man ak honorable député Mamadou Lamine Diallo ñu déposé plainte ak constitution de partie civile. Ah juillet 21 juillet juillet août septembre octobre novembre juróomi weer a ngi nii. Mhm. Euh, euh, doyen des juges Samba Sall tëdd na ci plainte bi. <laughs> kon loolu loolu loolu li li li mu tekki moom dafa leer nañ. Mm. te yéen bi ñu leen di déglu yóbbaale ngeen ay preuve yu xam day wane contraire bi maanaam que waa ji Frank Timis xamul dara ci pétrole. lépp la ñu teg ci seeni loxo. Mm-hmm. lépp la ñu teg ci seeni loxo. Uh-huh. maintenant ci wàllu xeex bi ci waxin la parce que duñu ñu génn sànnante xeer mais en politique l'opposition ni ngeen bëgg a taxawee mbir mi dafa mel da ngeen a tasaare seeni force daal. non du suñu for dafa am ñoo xam ne xarañ nañ ci des nañ ci xarañ. Mhm. am ñoo xam ne dañu yolomal. Mhm. jeex na rek mhm. waaye ca ca ca deux mille euh, deux mille seize deux mille dix sept. ñun ñëpp ci àndoon. waaye nag dialogue bi jàll na. xam nga booy boo nekkee ci dialogue gëm ko lool. doo doo bëgg wax loo xam ne dafay naq di ngay dialogueel. ndax euh, sa wax ji mbaa du fekki waxu euh, Barthélémy Dias gi biig ci émission faram mu ngi ne. am na ci opposition bi ñuy diil ak président. man ma àgg ci loolu waaye da dama xam ne rek bu fekkee ne nangu nga kaa ñu dialogué kaa ñu waxtaan. Mhm. a ah, doo doo doo doo doo sawar si di wax loo xam ne day day day naq di nga ngay waxal. ah justement foofu lañ ko war a gën a waxtaanee sax bu dee waxtaan pour ah, njëriñu réew mi la tax a jóg. ci yoon ah. ci yoon bu fekkee ne. Mhm. njëriñu réew mi moo leen tax a jóg. Hmm. mais on peut pas le reprocher quand même wuy wuy jigi parce que xam nga boo nee dialogue national ku dem ñu ne bëggoo xëy na réew mi. nga dem wax fa nga war wax a nga jël. waaw waaye da ngay autocensure itam yenn mhm. local yi noo ko gisee. lan élection locale yi ñu reporté. loolu day ñun teel nañ ci bind. Mhm. bi ñu bi Macky di dialogue national. ci ñetteeli yoon ndax. Mhm. mosoon na ko 2016 oote 2017. ku ne gis ne saa yu oote dafa am bi mu en euh, 2019 ñun ni ñu jàppoon ne dafa am itam lo mi koy uti don ut lan moy fal nañ ma ci ay conditions douteuses lo lu lu ci yoon dialogue day daldi di mm-hmm. man maay président incontesté incontestable waye ñaarel itam Japon nañu né élection locale bugg ko atmi, ci at mi ndax paregul paregul surtout ci dakar te mu fay lol dakar paregul ci dakar ndax way ah. ku ne xam na ne euh, rakam amna fa touti problème mm-hmm. waye itam parcel aseni, ah, kif kifa kifa am doole tay ci bir APR xeyna itam du du du du du ko xamne ëlëk ben <laughs> dinañu meuna and mm-hmm. desoon na itam naka lay def ba Khalifa Sall ndax gennugul et cetera donc loolu yeb bokkon ci li ñu njortoon Macky Sall bëgg na ràndal élection locale. ñu ngi ci euh jëkkoon nañu jóg ne dañ koy ràndal rek ba ba ba ba bés bu bu mun a ne. Mhm. daal di jóg ne mais li c'est illégal waru a ne. Mhm randal bi sax dëgg la am na loo ne yoon mës na ci euh, wax dara. Mhm. waye sans jàpp loo xam ne dañuy oté ci suffrage universel. mu bind ñu bind ko ci constitution. nga randal ko ci décision euh, administrative ma joxe ndigal loolu man ci deug deug dama japp ne yoon yoon yoon mm. euh, teggi nañ ko justement ñu ngi naan mais yoon Sénégal justice bi am na ñu naan justice moom boppam la am ñu le véritable problème du Sénégal c'est ça justice yow naka nga gisee. noonu laa ko gisee de. Mhm. man de ci kaw li ma dund personnellement ci kaw li ma dund. en tant que leader politique jàpp naa ne démocratie sénégalaise bala muy dëgër muy degeurat sax ndax justice bu baax son nañ ko fi am. Mhm. Bala muy degeurat, indépendance de la justice bi ñu indiwaat ko. Hmm. mais indépendance indépendance mais nit ki aussi sa indépendance ca la ngay yëngu xëy na yaa ci war a ràññiku euh, sa jur wu góor bu ñu koy tudd tey jii xëy na système bi judiciaire ci la mais moom it ak na mu ca taxawee nit ku ne ca la nga ne yaa cee waneeg njàmbaar. waaw dëgg la institution bu dëgër am na solo. Hmm. waaye ca nit ka itam. Hmm. ci ci njiitam itam. ndax man am na loo xam décision conseil constitutionnel dama waaru ci décision numéro 2 2019 considérant numéro 10, ñu dem ba bind ne fiche parrainage yëpp gis nañ ko xool nañ ko saytu nañ ko. Mhm. ne amut buñ ko nit teggi nañu règlement intérieur ndax dañ ko def fekk.

yow lan ngay wax comme ñenn ñi c'est prématuré wala ah politique nag mook fàggandikoo ànd di sóoraale ëllëg. ah man daal li ma li ma ci li ma ci xalaat mooy lii. Mm-hmm. dañu génn ci constitution dugg ci beneen constitution ndax am luñ ci soppi mën nañu wax sax ne du beneen constitution dafa am rek loo xam ne li soppi nañ ko ci constitution ba amoon. Mm-hmm. constitution ba amoon nee na ñaari man mandat constitution bi ñu soppi nee na ñaari mandat mhm. waaw fan la ñetti mandat xaj mhm. xaj ci mbindin wi xam nga aussi am na sax benn phrase xaaral xaaral ma maa ngi ciy ñëw bi ngay wax naan mandat yi ñaar yu tegaloo kenn kenn mënta am lu ko ëpp mais avant ñu wax loolu am na fu ñu waxee sax le mandat est de cinq ans fekk koo xam ne defoon na juróom-ñaar xam nga jeu de mots yooyu yëpp les gens s'y retrouvent plus waaw dëgg la moom a taxit interprétation am solo mhm. waaye balaa interprétation di ñëw da ngay jëkk tudd li nga xam ne li bind nañ ko ba noppi nga indi li tubaab di wax esprit ndax xam nga man nga am xalaat waaye booy bind xëy na du méngoog sa xalaat wala mu xaw a euh, indi euh, di divergence ah, ah. waaye esprit bi ki indi institution bu bees bi muy Macky Sall li mu ci wax mm-hmm. nee man ñaar laay def nee man jeexal naa nee na Sénégal kenn dootul defati ñaari mandat kon yëf yi leer na. ci boobu wàll. waaye ñaar am na. Mhm. benn ni nga ko waxee buñ ko yóbboo ci conseil constitutionnel lan la ciy wax man mus gisaguma. Mhm. suñu conseil constitutionnel bii toog euh, euh, Pape Oumar Sakho di ko jiite gisaguma président laajte dara mu ne ko du nii. Mhm. musut am. kon ah loolu mën na indi wax ñaareel bi itam. te loolu yaakaar naa moo indi coow li mooy ki waxoon ne man duma def ñaari mandat moom daf ñu tàmmal wax waxeet ak wax bañ a jëf loolu rek mu ngi naan eh, maa eh, damay dem ci lu yàggatul waaw waaye waxu Macky Sall la loolu de laa la ci mën a tontu mhm. te am na lu mu ci lu mu ñu ci tàmmal rek mooy indi waaye man de mhm. fi ma nekk mënut a def ñetti mandat mhm. loolu laa gëm

fi ko Macky Sall indi ba fii ak ay réalisation parce que pont yaa ngi fi les façons sax dem ci péage gi <laughs> dem nga ba Touba TER bi et cetera ban bilan nga koy defal ban Sénégal euh, yow acte ko ci li nga xam wax nga ko xam nga da nga grand projet mhm. grand projet d'infrastructure yóbbul réew ci kanam mhm. mën na waaye indiwul koom-koom. Mhm. ñun nag suñu programme ci loolu la ñu door war soppi ni ñuy doxalee économie sénégalaise ñu bàyyi di jiital grand projet. Mhm. nañu bàyyi di jiital loo xam ne day wan ay milliards yu dul jeex ñu dem lebi ji ko bitim réew. Eh, dénk ko travail nag dënk koy à entreprise étrangère. Mhm. maanaam sénégal yi duñ ci am li ci ëpp. technologie bi bari ci.

milliard de dollars alal bi ñu duggal ci TER doyoon na suqali au Sénégal ay kilomètre kilomètre kilomètre waaye rayu Sénégal li ko uteeg TER mooy naroon nga ci liggéeyloo ay junney junney junney sénégalais li nga fay mu génn ci réew dem entreprise étrangère yi mu des fii des entreprise sénégalaise. ba nopi muy lo xamné am nañ ci expertise Manam, mën nañ ko liggéey. Mm. té du soxla ñu jëlé nit bitim réew. waye bo jëlé TER duggal té TER bi ñu jaay la ko ndax la ci mu and ak système de contrôle bo xamné ci France sax biñ koy taamu ñaari raay rek ñoko amone xam Sénégal yi mënu ko doxal. lolu di ben exemple kon ñun li ñu japp moy grand projet yi nañ ko teg fële. indi grand travaux yoo xam ne yi day liggéeyal sénégalais yi. fexe ngeen a xam lan moo leen tënk ñoom wala boog je même tenté de dire lu leen forcé ci def lu ni mel bu dee yow nii nga ko waxee parce que nii nga ko waxee la xel nangu ni mooy njariñam réew. pourquoi ce choix là est-ce que ci dans le montage financier la est-ce que yow pare nga pour ni nga koy waxee nii. loolu lolu lolu lolu option politique la. option politique option mais day am lu gunge option politique un financement quand même pour réaliser concrétiser les projets. ah oui ah oui lolu amna. Mhm. ndax nak mais li nga wax amna solo lool té lolu itam suñu programme indi na ci tontu. Mhm. Mhm. amna ci solo lool ndax Macky Sall leb na leba leba leba leb ba gouvernement bi nara ñëw. du du du du ko mënati sax faf su su dul wara fay fonctionnaire ak yenen waaye.

bokkon na sax ci e. yoy waye niñ ko niñ koy doxale ndax mutation économie bi dafa wara a ci secteur primaire dem ci secteur secondaire manam industrie bi gëna gëna am ci wàll. Mm-hmm. gën gën gën gën ci am wàll. waye doo xaar industrie ñew tubab indi industrie tech, ah ah dafa am lo xam ne am na fi. muy mm-hmm. artisanat artisanat di confection. Mm-hmm. artisanat di liggéeyu weñ artisanat di menuiserie mm. artisanat di uude industrialisation dëgg mu ngi war a jógee ci suqali yooyu secteur mm-hmm. jox leen loo xam ne soxla nañ ko ci wàllum formation ci wàllum jënd matériel ci wàllum am machine loolu yëpp ñu ñu ñu ñu indi ko ci war taxawal ay ay village de de métiers mm-hmm. ñu fay dajaloo di mën a liggéey ba ki nga xam ne ki yaa ngi ak sa benn mbaar di liggéeyloo ñaar ba ñetti apprenti mhm. nga mën a dem a dem ay at ñëw nga mën a am sa petite mhm. entreprise di mhm. ko màggal loolooy industrialisation kazalika ci ci lii li jëm ci mbéy mi ci ak jigéen yi itam ndax gis nañu ne jigéen yi ñoo ñoo ñoo liggéey dëgg fii ci réew mi ay jàmbaar lañu waaye financement état bu war a taxaw buñ ko jox politicienne ak politicien nañ ko jox ñi liggéey. Mhm. nañu taamu ñi nga xam ne ñi jot nañu taxawal seen keesu ñetti caabi walla seen seen leket. Mhm. gis nañ ne liggéey nañu benn at ñaari at muy dox ñu dolli leen ñu màggal li nga xam ne lii ñu nga ca woon ba noppi. li ngay waxee nii dafa mel ni ci wàllu yow sa jàngat économique mooy fexe ba croissance bi déjà moo tax ku ne naan ana croissance baak du ay tali yeneen da bëgg mu gën a law ci askan wi. loolu du. loolu mooy développement. Mm-hmm. croissance autocentrée. Mm-hmm. croissance excentrée moom. mënu mm-hmm. la indi koom. su dul ñi ngay liggéeyal maanaam ci ci lan yaa ngi leb yaa ngi leb bitim réew lu lu bëri dinaa ci dellu si. financer projet yoo xam ne ñu ngi jënd matériel bu jógee France. France yaa yaa ngi financé koomu France. financé woo sa koomu bopp. pourtant endettement boobu nga wax sànq junj ko bor le président parle d'un meilleur endettement parce que nee aussi est-ce que yow en tant que banquier nangu ni quand même endettement mënut a ñàkk endettement bi. endettement mënut te ñak wayé dafa am fu mu war yem ak limu wara financer. te mm. loolu nekkuñu ca te mm-hmm. Sénégal lolu lañu wara war dugg nañu ci ajustement structurel Liko indi moy endettement bu bari. ajustement structurel moy lan Moy état demna mm-hmm. ba wara a fay endettement kon li ci dess war indi comme, ci Sénégal ci Walum santé ci Walum éducation mënatul jang ak euh, wërgu yaram. Mhm. dina jafe. Euh, dina dina oté itam. prix courant bi. waaw ma ma ma ma ngi ajustement dina indi itam état mi ngi wañi li limu doon jëf wayé ménage manam, askan wi. Mhm. li doon mën itam ci euh, dundam. Mhm. fokk ñu wañi ko ci naka salaire du du yokku mm-hmm. na ko premier mai ñaar lepp lo xamné mi ngi ko dinañ ba mu yokk li mu doon li nga xamné mi ngi ci mm-hmm. ba lolu li ci mm-hmm. indi augmentation prix prix prix prix essence lolu mo indi itam ñu yokk njëgu électricité te

politique ndeke de Sénégal du du rek euh, yéene yu rafet. waaw am na am na de lu bari loo xam ne jàng naa ko ci <laughs> euh, li ma ci jëf nag rëccuwuma ko benn yoon euh, sama engagement maa ngi ci des ba tey. Ah. xeex bi ñu ma ci xeex itam nangu naa ko ndax loolu itam am naa ci jàngat. Ah. sóoraale nga ko woon. Euh, euh, sóoraale wu ma woon ne dinañ jëm ba fi ñu jëm. xamoon naa ne opposant da nga koy xeex waaye xeex ko ba bëgg ko rey. Mhm. tas euh, bokk ci ki tas famille am ak yooyu. loolu mhm. ci dëgg-dëgg xamoon ne boobu soxat dinaa dinaa ko gis. da ne daal guerre anticonventionnelle la. <laughs> <laughs> exactement premier ministre RFM mu lay gërëm baax la sant. jërëjëf maa ngi lay gërëm di la sant. merci beaucoup monsieur le premier ministre Abdoul Mbaye di njiital parti acte lañ ñu àndaloon mbokk yi seen émission yoon wek RFM ci technique bi Abdoulaye Diop.